bisub xidma la itam di ko ànd ak sëriñ Cheikh Jëmb mi nga xam ne moo jiite mbooleem njëbatu maam Cheikh Ibra gépp ak mboolem Baye Fall ak waaye mboolem taalibe suñ tuwaay ndax bu suñ seex Jëmb jiitoo rek taalibe yëpp tàbbi nañ ci biir kon ñoom itam ñu ngi leen di soññeel ñëpp suñ Cheikh war na faa dem ci sëñ bi ci ndigalu sëriñ bi ngir soññ leen ca ndax keroog dem nañ fa ci liggéey ba waaye dafa xaw guddi ngir fàttaliwaat leen ko waaye la suñ Moustapha wax rek moo ci am nee na toogati ba sëñ bi di ñu soññ ci mbale mi ak ñàkk jom la ci ñoom kon ñoom fekk na ñu jekk ba noppi waaye ñu ngi ci soññi bi yëpp te ren lay gën a jafe kat ndax dañ daa dañ daa bay di buub waaye ren da ngay ŋàccum ndox ba nopp door a wëlbatiku war a setal kon loolu itam xam ne leneen lu dikkaat jamono ba ca dolli ko waatit mooy njàngum alxuraan bi nga xam ne ci premier safar bi lay tàmbule sëriñ bi santaane ko ci li weesu waaye mi ngi joxe waa ndigal bu première safar tàmbalee penc yëpp fu ñu ko mën di def ba bisu màggal ga ñu di ko def di ko def addiyee rasulullahi di ko def addiyee Cheikh Khadim na ko kilifa mu jëkkee daa santaane loolu Serigne Mouhamadou Xaban Mbakke Cheikh Mouhamadou Fadil mi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal suñu borom dëgëral ab taxawaayam ci ginnaaw boo xam ne magam magam ju baax ji Serigne Mamor yoroon na ko te yoroon ko yoreen wu rafet boo xam ne adduna sépp ko seere bi mu fi bàyyi ko sëriñ bi joxaan ndigal sëriñ Modou Xaban mu tegawaat ci loxoom ñu ne ci gannaaw yi ñëpp ànd koog moom kon sëriñ bi jox na ko ci ndigal mooy itam mu ànd koog mbooleem rabita bi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ak mboolem ñi nga xam ne ay sëriñ daara lañ sëriñ bi ngi leen ci soññ na xam ne eh, lépp lu ñu liggéey la sëriñ Tuubaa loolaa ci war a jiitu ñàngum xasida sëriñ bi mi ngi ci jox ndigal taalibe yëpp waaye. rawatina nag sëriñ xam surtout sëriñ Souhaïbou ndax ngeen dégg ngeen kàddu yi mu ko seereel ci njàng mujj mi te yàgg na koo seereel sëriñ bi nee na ñu ngi ko ci soññ mboole ñu mu àndal ñëpp bu première saison bi tàmbalee rek fenn fu ci ne ndax dañ ko daa woote ci jumaa ji waaye ren dafa jege woote bu mujj bi moo tax mu ne comme defoon nañ ko te yàggut kon kenn ku ci ne mën nga koy dundal ci daara ji nga nekk wala jàkk ja nga ne wala pinc ba nga nekk ñu ànd ko moom ba ba ñetti fane safar yi ñu doo ko tàmbali ci jullikaay bi ci biir loolu itam sëriñ bi jox na ndigal daayira bu Tarqiyyah ci njiitul sëñ Yuusu Jóob bu alfatih min safar ak see rek moom it njàngum xasida mi fii ci buntu kër Cheikh Mamadou Faare ñu tàmbali ko bis bu yàlla sàkk ak kuréel di fa jàng ñu du ko def ba màggal gi loolu it muy lu yees loo xam ne sëriñ bi ren la ko santaane jox na leen ci ndigal te ñoom itam jekk nañ ndax ay soldaar rek lañ ba leen ko sëriñ bi waxee neen leen bu leen ko waxoon tey ñu tàmbali ko loolu lépp nag gàttandoo ko rek ak ñaan ngir daje ceeg tawfeex ngërëmu sëriñ Tuubaa la leneen liñ daa def lépp itam soppiwuñ ko dara ñi nga waajal gan ñi ni ñu leen daa séentoo fas yéene leen dalal na ko suñ kilifa yu baaxee daa santane conférence yi nga xam ne itam daa nañ ko waa commission communication daa nañ ko def ren jii fas nañ ci fas nañ koy def ci penc yi sàmmonteeg nag fi jamono toll dañ def dañuy def am mu jot ñu tànn ci njabootu Serigne Touba gi ak ñi njëkk a topp Serigne Touba ndax ñi àndoon ak Serigne kat ni ma koy faral di waxee ñoo mën a wane Serigne Touba ndax kenn ku ci ne ku xam. fañ àggoon ci xam-xam fañ àggoon ci ragal yàlla fañ àggoon ci seen digg seen borom ñoo ci ñoom lañ mën a jàngi dëgg-dëgg Sëriñ Tuubaa moo tax ñu wareen war leen di wane ba ñëpp gën leen xam te am na si ñoo xam ne fañ àggoon kenn xamul luñ toll te nit ñi xamul leen ba na gëni ren ji nag sëriñ Mbàkke Kajoor ngeen xam ni mu demee ci sëriñ bi moom leen tànn ci bokk yi tànn ci seex si sëñ Modou Gueye jamoo yi ñaari ñoo ñu leen tànn ci seen i ñu def fa ay waxtaan ci ñoom ngir fàttali leen ba taalibe yi gën a jariñu ci ñoom ñoo xam ne kenz mi ñu am layen faru bu jàllee itam bokk na ci ndaje yi nga xam daane ko def ndax léeg-léeg dañ daa def colloque international at mu jot ndax loole itam liñ ci jublu mooy Sëñ Tuubaa mooy wane boppam ndax màggal gi damay wax ne daanaka sax lu jar communication néewatu ci ndax moom ñëpp dañ koo xam ba noppi nit ñoo koy waajale seen bopp ñoo ko fàttaliku seen bopp xanaa lu ci ne yëgle lee doon rek waaye màggali kenn xaaru ci kenn kon ndajam bu ñu àggee la 15 safar am na ndaje mu rëy mu ñu ci def moo xam ñu ngi koy def ci bu imaamu Malik ñi koy seq ci borom xam-xam diggante Maroc lay nekk ak Mauritanie ak Sénégal ak mboolem këri diine yi Sénégal ndax ñëpp ci ngirum imam Malik lañ tënku ñu jàngataat ngirum imam Malik ak li tax ñu sukkandiku ci ak li tax ñu tënku ci ak lim ñu jural te xam ne loolu itam bokk na ci ndigalu Sëriñ Tuubaa ndax moo waxoon ne maaleykum bil malikiyya loolu Sëriñ Tuubaa ko santaane woon kon loolu itam ndaje mu rëy lay doon moo xam ne ci xarala yu bees lañ koy jaarale waaye àdduna sippit dañ ko topp ànd ko ñi nga xam ne ñooy kuréel gi saytu loolu ci biir loolu itam kuréel gi nga xam ne taxawaloo dañ ko daaw mu tuddewoon ko fekk ak fagaru mooy al wiqaayatu xayru min al ilaaj loolu nag du ma ne xaddis na ndax wóote yi dafa bari waaye wax ju siiw la rek wax ju rafet la waaye li ci am solo mooy wattandiku moo gën fajoo daaw Cheikh Mamadou Mountakha ngir sédd fi àdduna toll ndax ni ma koy waxee dañoo dëkk ak ñoo xam ne ñoo bokk ñoom réew mi ak ñoo xam ne ñoo ñoom ñoo bokk lislaam ji waaye bokkuñu ay tarixa waaye ñoo bokk lislaam ji kon nag ñun ñëpp kenn ku ci ne na nekk ca lam nekk waaye na war wormaal moromam na war maalal moroomam lam gëm loola nag bokk na ci li koy sàmmante moo tax lii nga xam ne mooy jàngoro ji kon bu ko ñi dawee te ñi dawuñ ko it du sotti kon day mel ne cim xel sax ku ko ku ko gëmutoon sax ngir sedd àdduna ak sedd aqi dëkkandoo rek war naa tax nga di ko ottandi ko ngir bañaloor kenn ndax ka koy daw te yow dëggoo ko yaa ngi koy yóbbu fitna ndax mooy bu bëggee daw mën naa indi mën naa indi fitna booba te loolu bokk ci lii rafet ak rafetal ak dëkkandoo kon kuréel googu itam professeur Lamine Gueye moo ko jiite moom ñëpp xam nañ ko ci xam-xamam bokkoon na ci ñi jàngal ñu bari wàllu médecine ci Sénégal nañ ko defe woon daaw ren jii ñëwaat nañ siñ bi yeesalaat ndigal ñu ànd ko comité bi sëñ Ousmane ànd ko ñoom ak daaira muqaddamatul xidma bi nga xam ne mooy seyti jumaa ji ak li ko wër ñoo ko ànd ndax xam ngeen ne foofu mooy barab bi gën a jafe ci fi ni mbooloo mi daja ndax ñëpp fi leen moo leen tax a jóg jumaa ji ànd ko ak commission bi yor wàllu santé bi nga xam ne Serigne Cheikh Abib moo ko jiite ànd ko ak commission communication bi nga xam ne Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma moo ko jiite ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la làmboo